ayca mbokki na bët set ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme niñ leen ko waxee woon rek nee nañ leen ñun dañuy ànd ak yéen euh, lépp lu xew rek ci gàmm gi ñu daal di leen koy indil tey nag ñu ngi fi nga xamante ni moo di géejawaay euh, ñëw seet si ki ni moo di murit murit mbay euh, fekkoon nañ ko foofu ca Touba Ndindi taaliba sëñ Abdou Karim bu mag bi nee naa leen kenn mënu ko ci yoon wi moom nag la ñu fekk si fii ci géejawaay du ñu def rek lu mooy bàyyi ko mu nuyoo mu wax ñu naka la dundee ak màggal gi gis ngeen gàmm gi gis ngeen tabarkàlla mbooloo mu bari mi nga xamante ni ñoom la àndal salaamaaleykum Baye Murit ñu ngi lay nuyu maaleykum salaam maa Ah, ñu gisoon la ci ga màggal gi ah, nga def lu doy waar ñu ñëwati ci gàmm gi fekk fekkati la fi macha allah nga dajale mbooloo mi ah, lan nga ñu mën a wax si bés bi. lii doole Serigne Touba la rek duma ci dara de lépp sëriñ Bey sëriñ be njëkk gàmmu ci réew mi moo woote gàmmu daan ko defal boppam waaye màggal gi moom bis boobu la yàlla am ci ci àddina bu ñu koy sante doo àddina ba mu daj doo wër fenn man la bis bi sant yàlla la. loolu sëñ Tuubaa ka créé dans le monde yonent yi defuñu ko xutbu yi defuñu lopitaane ba woo àddina ñëw rey nag yi gëléem yi jàng alxuraan julli ci yonent bi sant ka yàlla àddina yëpp dagg kooku sëñ Tuubaa ka njëkk def nag yàlla boo bis la bis bu ñu sant mooy bis sëñ Tuubaa aj màkk am na lépp am na yooyu ndigalu yàlla waaye jàmm yàlla bu ñëw créé yu mel noonu bokk la gars yi gars yi dañu dëddu décollé moom mu dëddu décollé du benn kenn du moom ku ñuy tëkkaleeg Sëriñ Tuubaa nax nan la Sëriñ Tuubaa boo ko bañee sa dem safara yàlla bi nekk si allo yi ma fuus màggal gee war a kekku moo tax gàmm gi xam nga boo gàmm boo màggalee pare boo gàmmoo rek màggal gi ree ba mooy lii lépp Sëriñ du Karim ba kenn du moom Sëriñ du Karim ku ku ni ku weet ni mënut a defar góor rek na ma xool moo ma defar li doon ni ma def bëgguma ay kenn moom rek li mu def ci man. def ko ci jullit yi def ko ci nit ñi yàlla rek am man de bu ma dee gor lu ma wax moom lay doon fu ma jëm moom la lu ma jublu moom lay doon lii du yàqudu lii lii du ay pexe li sëriñ bee waral tund wi yëpp foo dem day mel ne njëriñ di dara du jeex lépp sëriñ Touba doole sëriñ bee sëriñ Touba moo dul nawle bokkul ak gaay yi di wax sëriñ bi di wax keneen sax aram na ki kenn du moom xoola mbooloo mi man mu suufe mu wàcc mii mu loqatee ma ci roq bi teg ma fi bële mag sitam bu baax bi muy def di dindi sama jëmm ji boo génnee lépp ngay gis te dara du jeex simple que li may jox du jeex day tëb ak ñaari loxoom di ma ko xëpp ba ma dee góor dama ko war wasaare wan ko wane foo rek wërsëg yi sëñ Abdou Karim ak doolee ma fa ne kenn du moom Euh, gis nañ léegi euh, sa benn photo bu nga xamante ni waree nañ ko mu mel ni booba ndaw nga moom i tamit sëñ bi euh, xam naa ne tout tànk la loolu est que mën nañ cee dellu si ñaata at lay tombeel ak bi nga amee ñaata at la la suñu borom booleeg sëriñ man ba man ba ma ba yàlla bindee jaam yi rek dafa ma bindaale Cheikh Abdou Karim xam ne moo la war a àndal mooy doom sama sang ma judd di ko làmp fu ne ma daj ko tey téye fu ne dem naa waaye li ma defal kenn mësuma koo defal ndax xanaa gisoo ma mel bu guddee bu ma génnee ci nga ci xam sax du ma nuroog nit ñi Cheikh Abdou Karim kenn du moom kenn du moom barke alxuraan baax gi mu baax tab gi mu tabe gore gi ne ci moom yërmande gi mën alxuraan gi ci moom bëgg sëñ tubaa gi gëm rasulaay gëm ni yàllaay ngën gi wot loolu moo gën a garaaw ci moom dafa gëm ni yàllaay ngën gi wat liñ naan buskaar sa bidaa Sëñ Abdou Karim moo ko def njafe addinaam fekk ndaw yu tële yi mu fekk leen ci booru géej yi Marseille so ku leen mën a fekk foofu da leen fa ba mu jëlee leen fa sax nga leen ba mu set def leen nii kon mënul dara demal defi rek agresseur yaa ngi fi sàcc yaa ngi fi lépp ngi fi ku bëgg def sëñ Abdou Karim morom demal rek ci gars yi te defar benn nit ba mu baax ci lislaam bu ëllëgee des na la tingom ci kanam Rasulullaay bu ko ne gis la ñaata nit la defar gisoo mbooloo bu guddi ba xasee jot fii la chef du commune di fanaan si jëmm jëf fee lay ne baatinu chef du commune fii lay ne di wëndeelu nee na ma demal dakaar woote gàmmu ki dara du jeex noo bëgg lay mel tegal naa la ko ci barab demal jël ko waaye yéen a yor seen xool wër leen xool dakaar gépp kenn amu fi gàmmu gu mel nii chef du commune la yàlla fayee loolu wër ko ku ñuy tëkkaleeg Serigne Fallou dan lay nax billahi barke alxuraan demal wutali ma ko mel ne sëñ Fallou ngeen di ko fi ah sa nangu sa sëñ Fallou moomee kat nanguwul doon dara ci sëñ Fallou lu ëpp taalibeem ñu gisoon Touba nga wan ñu ay waañ yu bare bare bare est-ce que ci xayma mën nañu xam wàññi ci gàmm gi ñaata la tolloon. man xaw ma ko damay wër rek naan samp leen fii samp leen fii rey leen xar yi rey leen nag yi ñewe leen gëléem yi wëndeelu rek. dugal ci dugal ci gox bi bu doon àll bu dara newul ma soppi ko dëkk ci benn guddi doole Cheikh Abdou Karim laay doxee bu doon àll gisoo ni ma def fii pàkk yi kenn dëkkul ak sën yi ma soppi nii ay ay firdawsi ay firde <laughs> gisoo ni mel sëñ Tuubaa moo dul nawle boo bëggee sëñ Tuubaa loo bëgg am ka boo bëggee sëñ Touba loo bëgg am ko boo bëggul sëñ Touba sa dem safara yàlla ko bind sa lu maxfuus koo tooñ mu duma la ko la tooñ ñu duma la yow man xëy am gënu jëm ko la yow yaay la. sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal di la bàyyi nga tàggatoo ak di la laaj ak lan ngay dénk ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk sa ginnaaw. bëgg sëñ Touba man aw ma lu may dénkaane bëgg sëñ Touba ndaw ñi daal. dénkuma leen dara lu bëgg sëñ Tuubaa lépp ci bëgg sëñ Tuubaa leen dénkuma dara lu nu bëgg sëñ Tuubaa daal laay dénk du ndaw yan ak mag ñi àddina gépp bëgg sëñ Tuubaa lañ di dénk ak yonent yi sax ak xutbe ak laptaar yi arifine be nunu bëgg sëñ Tuubaa ci la njëriñ ne kenn yobu ko du malaaka yi du yonent yi bi wax na ko sëriñ bi sëñ bi xanaa xamoon ne bu desoon ci géej gi gàmmu doo am bu yemoon biro Ndar gàmmu doo am bu yenoon yemoon jeewal gàmmu du am bu léppam jeexoon maa yombe wala kutume wala daawme gàmmu du am juróom-ñetti at mu nuur ci leer yàlla yi futti góor yàlla yëpp des gannaaw ni mën a gaa yi weddi dañuy fen sëñ bi rek ba pare jéggal ñëpp am benn waay bu ni ma dama yéemu sëñ Tuubaa ma ne ko lu la yéem ma sëñ Tuubaa dafa am kër états am kër France dem ba nelaw doog a am kër yooyu yëpp ma ne ko yaa nay yaa yéene sëñ Tuubaa kër yàlla may ko àddina yow kër ma ne ko nii dunya wax sama do maa indi ko Moxtaar Mahmud nga ko si yéene ay pak àddina la moom moom nit ñi moom alxuraan moom yonent yi moom xutbu yeeg laptaar yi moom picc yeeg téeñ yeeg matt yeeg jarax yi moom golo yeeg xaj yi moom gaynde yi moom wëlu yi moom jàkk yi moom jumaa yi moom julli yéen yi julli ci biir nekkal fi alxuraan alxuraan nekkal ko fi kitaabu rabbi kaani li wakkatu la wallaahi bi sakantu wokk la gars yi borom guddi gii nag dundam ak dund rasulullah la yàlla tamponé kafaaniyal baaxi mamaata sarmada wa bu nu caaxaan du nit ku ko technique nafiq nga ku ko morom nafiq nga ay ay kàcc yu wér peng nga ne kenn du wax man li may wax ku mu metti booy añi woo suur na booy woo man chef du Québec lay yëg moom rek bëgg moom rek ay xool moom rek laay déglu dégluwuma kenn sëñ Abdou Karim rek dama ko bëgg sax ba foofu nuróo moom yow nit nuróo dama ko far <laughs> loo bëgg bu yàggee nga nuru ko loo bëgg boo dee golo golo bu yàggee golo ngay nuru boo dee waaw boo dee nuru nuru lu wëyu ku gis sa kanam xam ni wëyu ko boo bëggee sàngara te koo bàyyi ku gis xam ne ivrogne nga boo bëggee nitu yàlla di ko di ko nuru nuru ku gis teg la nitu yàlla boo ragalee yàlla ragal ko ragal yàlla ku gis ragal la boo ragalee yàlla ragal ku ragal yàlla ku ragal la man daal dama leen déggal na ñëpp gëm ni yàlla ngeen gi wat sa jox na loxo sëñ Tuubaa léegi nag moom c'est la face à dire lu xam ñun daal ay murit leen te duñ doon doon dara lu murit te fier nañ ci doon murit te bëgguñu doon dara ñun murit rek. ñu ngi